nga xam ne moom président de la république dal dina saisir euh, wa conseil euh, constitutionnel ngir ñu dissoudre li nga xamné ne moom assemblée nationale est-ce que japp nga ne euh, conseil constitutionnel dina d'accord ak président pour mu dissoudre assemblée nationale boobu la. waaw non mais xam nga xam nga <laughs> man tay la ko yëg na xoolaguma ko bu baax et parfois souvent buma buma buma bu dara xewé ni damay tëju gëstu xol mhm. laaj spécialiste yi xool. mais euh, c'est un projet. manifeste de Sonko Diomaye hmm. mooy assemblée nationale bi parce que xam boo xoolee ñoom dañoo bëggoon jaxase peuple bi ak assemblée. Hmm. bi Ousmane di dem fële grand théâtre boobu dafa bëggoon jaay peuple bi euh, populisme bi ne leen assemblée bi baaxul nangam nangam si la yónni ay député seen stratégie yónni ay député ñu def conférence presse. Hmm. daan ne ko bul ñëw assemblée. Guy Marius bind ne ko bul ñëw assemblée parce que assemblée bi nangam nangam ñu yónnee Mimi pour mu jaay 31 juillet la assemblée war a dissoudre mais bi ñu defee loolu Ousmane Sonko def benn erreur tamit tactique mooy bi muy naan gars yi je vous donne ultimatum di répondre ci Facebook Facebook boobu mu bëgg suprimé supprimer. Mhm. foofu moom mooy këram fa la doon répondre fa la tontu daan su ngeen ma joxul ba le quinze dina dem ci mbedd bi loolu dafa bëggoon peuple bi dafa defoon ni ni ba léegi mu ngeeg cinquante quatre pour cent yi mhm. peuple bi génn ne ko doo fa dem assemblée bi ñu peuple bi porté combat bi mais de vaillants opposants yu mel ni ñoom Bougane ñu mel ni ñoom Thierno Bocoum ñoo taxaw député assemblée yi tamit bloqué son ministre débat d'orientation budgétaire ne ko mhm. comme respecté woo institution bi eh, doo fi ñëw dafa échec ci stratégie bi surtout léegi nag ñu yeggaat ci beneen phase négociation ak ñom parti ñi nek biir assemblée parce que te laa am na ñuy négocier ci souf pour négocier ko nous PDS bëgg ci jouer ben rôle bu salte parce que même PDS bi attaqué woon conseil constitutionnel ak magistrat ak juge yooyu mhm. ñooñu ñom ñoy ñooñu tay ñoo génn ne ñooy def médiation di jouer bi ñoo joggé mhm. wa AP APR tamit teju ñu waxtaan ñu am waxtaan bu ñu tambali. wax waxtaan bobu mo échec parce que waxtaan boobu moo doon nu muy ñëwee te problème du am jour bu muy def ses politique générale parce que Ousmane dafa ragal jàkkaarloog député yi parce que ñemewul Thierno Alassane Sall ñemewul Pape Djibril Fall ñemewul ancien ministre yi nekk foofu. Mhm. parce que amul lu mu jàkkaarloog ñoom parce que su amee fit dëgg am technique am des arguments dafay ñëw jàkkaarloog ñoom mais musul mus ngeen gis Ousmane Sonko mu def conférence de presse live wax direct dem envoyé vidéo musul leen ko gis assemblée da wax ba pare dem ñemewul ñooñu. léegi bi ñuy waxtaan ñoom waa PDS parce que am na ñu bëggaat majorité am na une partie ci jamono njabootu xalifa ñoo xam ne bu ñu sañoon dañuy dem seeyi fële. Hmm. xamul lan la pure réservé mu bëggoon ñu waxtaan ba def si politique général bi mooy bi ñu koy mujj waxtaanee waat. mais bi mu échecgee parce que ci diggante bi gis nga jàpp yi ak hmm. affaire audit yi ñuy yëkkatiwaat ak coow li soo ay audit yi rek parce que waxtaan ak protocole moo leen fi teg ñoom ñoom dañoo waxtaanoon ba jiboo ci yenn point yi ak bañ delloo leen seen parti hmm. indi loi d'amnistie bi mais ci diggante bi dafa am lu changé ñu am ñu ñu jàpp am yenn protocole yi lenn lu lu levé wu léegi affaire bi changé assemblée bi mënatul. Mhm. lool dafa échec bi mu échecgee nag temps bi ñi doon xaar jaay ñu 31 bi mi mu jóg wax ba sonu ça n'a pas marché ultimatum bi Thierno Bocoum ak gars arrêté ko. Mhm. né ko le 15 mu échec ci le 15 boobu mu waxon bu ngeen ko def deful jomay genn momit it xam nga Diomaye day nax sénégalais parce que fay jaay sénégalais buy nuyu du sikku di sukku imam bi té séti woko ba tey demoo seeti imam bi dalaloo waa Dakar. Mhm. dalal demoo seeti ji sax dakaar bi nga xam ni fa la fa la xalif général des Layènes dalal dëkk. lébu yi dalaloo leen te imam moo nekkoon ci dëgg yow ma lay jiite chaque jour te seet si woo te te recevoir ma seet si woo ma léegi public bi ma leen di wan ni damaa yaru dama sukk yëkkati Aminata Mbengue Ndiaye toog sénégalais jaay ko mu dem tuubaa dox fee tànku ne nit ñi ñëpp loolu daf ñu ci yóbbaale woon parce que image boobu la ñuy jaay naan jomaay moo yaru. moo tax bi mu génnee bi Ousmane échoué échoué mu génn moom di def conférence de presse. Mhm. bëggoon laabe Ousmane pour ci image am mu ne wax naa sax premier ministre seet si nañu ma dina dem def ji kii bi waaye bu ko defee woon euh, feneen sax muy ëpp qualité yi far yàlla natt ko moom it foofu mu waxaale bêtise sa attaque institution bi. Mhm. mais jomaay dafa nekk di ñu nax di ñu napp di ñu jaay image yu yaru bi image yu nit ku sell keeg affaire yeeg yooyu. Mhm. pour ñun ñu defal ko différence mook Sonko. maanaam ne Ousmane Ousmane moo c'est que Sonko moo kii Diomaye moo léegi Diomaye ci loolu la bëgg Diomaye est en train dans sa politique de se mais dafa bëgg peuple bi defal ko ko. Hmm. léegi nag moo tax mais Diomaye bi moo saaga woon magistrat yi ci loolu lañ ko jàppee woon Diomaye bi moo ñu gëmloo woon ni Ousmane yaramam dafa am problème mu dem Diomaye bi moo génnoon ci réseaux sociaux bi nañu bu ngeen ñu deful lii ak li c'est le même Diomaye dem leen ci archive yi Diomaye bi moo yeewaat ñëw toog léegi nag Diomaye dafa nekk defar benn image. di ñu man aw ma haine aw ma lenn opposant bu wax dinaa ko jël contraire bi léegi kan la ñuy xool du Ousmane Sonko. Mhm. mais Ousmane Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Ousmane Sonko. loolu ñoom ñaar boole naan boole tuur bi Jomaay génnee. Mhm. wax ci échec ci conférence de presse bi ci sortie bi mu def pour laver Ousmane affaire bi échec bi mu nee sax institution bu amul qualité la loolu la ñu échoué. ñu ne dañuy saisir conseil constitutionnel li nga ma wax nii léegi léegi moom naa vérifier mais bi ñu ne dañuy saisir conseil ban conseil constitutionnel la ñuy saisir. bi am deux juges yu ñu accusé yu PDS accusé de deux milliards. Mm-hmm. juges yooyu ñooy toogaat pour war leen àtte. Badio Camara bi Ousmane Sonko taxaw fële ci grand théâtre accusé ko. Mm-hmm. conseil constitutionnel boobu la ñuy saisir. moom état bi ñoy saisir ñoy ñaari juges yooyu seen dossier nek tribunal ñu war leen àtte. wa légui fi ma nga xaar conseil constitutionnel mais dans les normes mom le 12 fu mu yegg si am nañu droit deux ans pour dissoudre assemblée nationale te loolu jàpp naa ne Ousmane bu waxtaan bi échecgee ñu yóbbu ko ba le douze mu dissoudre assemblée bañ a dem assemblée parce que ñemewul assemblée yéen ñu bëri comprendre duñ mhm. Ousmane Sonko euh, day daan wax rek coow saa yu amee day génn wax ndaw ñi génn leen. mais lu mu ñemewul ñemewul dina dina dem assemblée nationale c'est xam nga lan la bëgg xam nga Waly Diouf Bodian dafa joxe ton bi. Mhm. def benn sortie bu mu defoon Kër Massar. daan on ne peut pas oppose s'opposer avec des opposants milliardaires li ci des du ma nëbb dinaa ko denc duñ ko eggali mooy maanaam dinañu dem bientôt jàpp opposants. yëpp ñi ciblé ni dañu téye base deuxième point bi mu ne mënuñu gouverner réussir suñu mission de amuñu majorité majorité Benen, bi ñu lancé assise de la justice référendum lañ njëkkoon bëgg a def daal dina assise yi bu une adhésion populaire jury populaire ay yeeg yoy dañuy indi réforme yoy pour ñu mëna duggal seeni affaire mo taxoon ñu acc sax seeni affaire projet yi mhm. référendum bi ju jaay ko marché wul parce que jomay mo génn ne len amuñu moyen pour mëna def yenn réforme yi conseil supérieur ma ngi déglu parce que ñom ñoy wax ñoy yakalat seen bop légui nak bi nak ñu ne dañuy saisir conseil constitutionnel parce que bëgg nañ délai bi dem ba septembre parce que magal gi après ñu ne gamu bi mo ci top légui septembre Ousmane baña dem mais ben projet lañu am moy majorité à l'Assemblée nationale mhm. ñom loolu lañ nekk di liggéey mooy dañu bëgg une majorité mécanique à l'Assemblée ci la ñu nekk di liggéey ak waa PDS mhm. ci la ñu nekk di liggéey ak yenn camp ci biir kër xalifa am na ñu bëgg dem am na ñu bëggul dem am na ñu bëgg xalifa oppose mais man dama jàpp ni ni Barthélemy Diaz mhm. état bi mënul ñëw en tant que maire de la ville ba léegi gis ngeen jomaay dem seeti ko mhm. ci liñ naan dafa sa première dëkkandoo mooy Barthélemy Diaz surtout que moom en tant que demandoo woon Paris ci ci ci jeu bi mais xam nga en tant que sax sa dëkkandoo bu njëkk Barthélemy di nitu état doomu état xam république doomu ministre moo la ko njëkk a bind ne ko ne ko dama bëgg nga recevoir ma parce que palais bi ci biir si ville de Dakar la nekk ville de mooy abrité yu bari mais jomaay faalewu ko comme ni mu def sëriñu Dakar bi comme ni mu def sëriñu Laayeen yi comme ni mu def sëriñ Maaña demu fa demu fa tant bu su fa demee nag ma félicité ko parce que ba mu demee fële dama ko affiché mhm. ci Tiwaawoon bi ak kii bi léegi nag benn moment Barth wax leen loolu ñu bañ mais Barthélémy Dias bi ñuy def loi d'amnistie bi politique waxtaan ak Macky Sall ñom Ousmane dañoo trouver un moyen pour génnee ko éliminer ko mënon nañ ci bolé fee bobu bolé wuñ ko ci. ci éligibilité tay même Barth bobu ñu am objectif pour dindi ko fa tek fa Abbas Fall wa pour man wa taxaw Sénégal yépp député yeeg képp ku fa nek yépp dañu wara solidaire xex ba dem assemblée am majorité rétablir Barth ci ay droit parce que boudé politique ak xeexal Sénégal ak xeex te beneen bi si topp mooy Barthélemy dafa am deug parce que Barthélemy dafa dialoguer en haut ak beuk midi midi ki midi ki sondé la ki bànju la taxaw ne Sénégalais yëpp dañuy dialogué Ousmane Sonko dafa dem protocole waxtaan ba am 3 points yu mu d'accordul ak points yu mu d'accordul Bassirou Diomaye waxtaan ak doomu président moo ko wax ci conférence de presse am laaj ko ndigal ñu gisee président ñoom ñëpp di ko nëbb sénégalais yi ba tey waxuñu ko sénégalais ba am ci loi si am ci ñu delloo si waat seen parti mais Barthélémy bi ñu jàpp ko yàq deram yàq deru Khalifa Sall te ñoom dañoo taxaw ne dañuy dialogué dañuy waxtaan ñii dem waxtaan ci suuf kon tey ñee ñoo am léegi pour man Barth boobu ñu nekk di négocier une partie de Khalifa am na député yu nekk ci biir taxawu Sénégal yoo am seen sens ci ci suppléants yi naru ñu ñëwaat ñooñu ñëpp bëgg a négocier pour ñu dem assemblée. Mm-hmm. ñoom ñu am majorité parce que objectif bi ñu am ñoom mooy majorité à l' assemblée Ousmane ko mën a nekk cinq ans président assemblée nga xam ne élu lay nekk cinq ans parce que premier ministre bi wóorul moo tax nga gis ñoom Boubacar Camara di rogo jeeru génn léegi ñi waxoon Boubacar Camara mi waxoon ay stagiaire lañ génn léegi di jël seen défense pourtant nga gis ay genre Makhtar Cissé ay genre Makhtar Cissé yooyu def délégation yóbbu gars yi ca ca Ousmane ak yooyu pour ëllëg ñu indi profil yooyu parce que Ousmane li mu gëm mooy damay dem majorité porter list bi bu ma demee ci list bi ñëw nekk président assemblée nationale nga xam ne day am cinq ans parce que le mandat est cinq ans mm-hmm. mu sécuriser bopam majorité boobu lañ nekk di liggéey mais ñom Ousmane ak waa Yewwi ñoom c'est dangereux de donner un pouvoir à une majorité té majorité biñu ñu wàññi def ko majorité équilibrée mo indi won dëkk bi trois ans yi mu normal budget yi di jaar yoon lepp di jaar yoon donc pour man sénégalais joxéti majorité mécanique biñ ko dindé ci Macky Sall si lañu gis stabilité am pour man dootuñu joxe te meilleure manière ak meilleure forme bu ñu mënon gérer Sénégal mu normal mooy ñu am une assemblée équilibrée comme li am ni nga xamni kenn du am majorité absolue kon dëkk bi day nekk ci bonne gouvernance kon loi yi ñu wara def yëpp dafay jaar yoon kon ñom objectif bi ñu am moy ñu ngi préparer pour sanni ay sonde ruine tëj yenn gaay yi len lancer audit yi lancer yoy prétexte yooyu yëpp mooy jël ci digënté bi yóbbu ñom ñëpp kasso dem assemblée nationale sans ñom élection bu ñu demee élection daal di am majorité Ousmane mën a dem assemblée léegi nag looloo tax nga gis Mimi Touré nekk nii rakkaaju parce que pour moom dañ koy rétablir moo tax Mimi Touré sànni leen ñaari bomb dane d'accord mag loi amnistie bi ba pare di leen defendre te jëlagul benn poste mooy su ngeen ma joxul assemblée nationale dinaa jël loi bi di ko waxtaane di ko waxtaane parce que xam na ne loi bi dafa am waxtaan piège la leen sànni noonu mhm. daa yàgg ci gouvernement